Abdourahman loo ku judd ci Mbàkke moo la xamal boromam waaye li ma intéressé mooy te seexal kem li seyxi ba seexal te sellal seeni xol ba nu xam boromam maanaam xamal leen yàlla ba nu xam yàlla au fond waxuma jàng li ci téere yi kese mm-hmm. xam yàlla au fond du cœur mm-hmm. ba koo janool di gis ci moom yàlla. lislaam sax xol seeni xol. Mhm. ba nu xam boroomam. lislaam xol la. waaw te sàkkal leeni mbooloo faw yi jëf waaye te tàggat mbooloo ya ba du nu a mooy boroomam. loolu bari waa na ku dajale aw góor ku jigéen musiba ngay am. Mhm. Saliou. Saliou Mos. <laughs> parce que mënoo leen a tënk. déedéet. règle day day wutaloo leen ay freinage. déedéet. waaye sëñ Tuubaa waxuma la moom seex si mu seexal mbooloo yi mu leen sàkkal la tàggat ba duñu mën a mooy borom liet naa yi waaw liet naa yi ñoom waxuma ñoom liet naa yi mhm. mboolooy liet naa yi mhm. mënatuñoo mooy yàlla troupe yi waaw ci genn génn ci ñun yeneen la li nga loo am neex na leen ñu ndokkeel la ci doyloo yàlla balaa dara xew ñu doyloo yàlla mhm. def yàlla seen seen wéeruwaay luñ soxla di ko laaj yàlla te bañ koo laaj kenn ñi mu yaroon ñi ñu yar ñoomel noonu lu jara bàyyi xel la léegi nag diggante boobu ba ba muy wax li ngay lim doy na yow musaa taxawlul la bëgg sëñ Xaadim mu way ko ñu yeggale ci yonent bi dem ci xasida yi kay waaja daa ngeen ji yonen yonen fal ko muy xutbu boromam li tax way walaf te ma dégg yaaramoo dama nar gaay jàngul xam boromam ma kañ ko tawayko ndaxte mu doli may may géwal sëñ naa luy kañ boromam ma li fi jaloore to suli fi ndam te waxar baax yu tax ngeen xam boromam te xëj yàlla fal xam nañ maqaamam ca xar bax ya ci ma ya xam boromam ci waliyu ya ci xawsiya sax fa diiwaan ca xutbu ya ak ña daaweet boroomam ña xam yàlla yonen ca baawoon ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam te wax ji moo ko wax ba konoon yooyu boroomam ci gi jëla lambee yàlla ba fekk muy géej mu tànq jëleeri xëy ya naan boroom ci gi jële dàq seytaane ki gaayam bu ñuy maaj muy taxaw fara tey boroomam ci géej ga la bàmba tijjee ndam bi xam-xam ba faf yor alluway xalim ak boroomam ba àgg ci yàlla àgg ci ngën ji yónneen ñu soppi ko soppi léppam muy boroomam saxal foofee jihaari bakkan ci ay at di boole tagak juleeg wiital boroomam ba faf seey mel ni suukër far ci yonnem di moom muy moom ci baatin cay boroomam ñu bokk ko fol te ko ngërëm mu fab kun ñu wamma turu yi jox ko mu jox boroomam di kenn ku ñëpp xam foofe ci baatin tubaab ya di bañ sëriñ sa boroomam mu faf tib janti tiim jëpp duniyaa di taalif téere yi sellal boromam malaaka yab teerab pal ga mu am fa diiwaan malaaka ya seere pal ga mu am fa diiwaan muy fal ay xutbu yi dee ak boromam fa am ci peyi aras ci baytin ñu diisoog daam te mooy jaasi boromam te mooy wutaatu yonnen far ci kaw suuf di mbootam kun ci lépp lu so boroomam cheikhul xadim mu laq ngërëm ci zahir ak ci baatin maqaamaam faw xam mboolem ñooñ boroomam sëriñ Tuubaa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 jàngul liggéeyul mu seexal sol ko xam-xam ak boroomam di fekk murit bu dof bu tilim ferul baa mu fóot ba mu set tofal mbooloom boroomam melay kaw yaag biiram dëppoo nañ du digle lu bon du déglu ku dul boroomam du moy ngir tiit du bew ngir mbég lu rëy rëy du bëgg du bañ du faale ku dul du jàq du rët du jaaxle du fàtte yonen te mas la tawat lu xew ci kudul boroomam du daw ay noon du yox yoxi ngir pexem nit du sukkandikoo ci mbamb ku dul lu mbir rëy rëy da koy far dolli ak gëm du yoqi du daw di mbër mu farak boroomam du wopp ba tax wàññi jaamu yàllaam du tiis ba mu tax mu war faratay boroomam du dégg nodd mbaab kàbbar te teewul lu taw taw ak lu liw liw cey boromam du tabye bëtiim du wuti musul di maamoom du gappuru bis du wéeru jilil boromam du yeexal wenn waxtu te mas la fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam du ñàkk ba tax mu bodd kuréel yo koy laaj du denc alal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 njabootam mu dar dar ko ngir ànd ak boroomam yërëm naw ndaw xamal na leen yoonu baatin teral naw mag ba jëppaleen boroomam yëfal nay mbër tabax nay kër ci suus yi xamal na ña woon ngirum boroomam te taal na ci réew mi taal bu dul fay ci duniya mësee fu la gis kemam cey mook boroomam daa ba ni kekk nooy ba ni nemm ci wet te am jàmbaar gu tar te ragal boromam woyof ba ni toy diis ba ni gann ci wet lewet ba ne domm saf-sàpp ak sawar te lefoog te yaatu te xir te am ngor di tab budul jéel lu mu am jox boromam rafet jëf saf xorom du waxaate réewul bari teggiin ci ku mu gis ngir boromam lu xejeki seen du ay bokkam du jaambur ku ñu mu teral digal la nga xam boromam du boddi du ñax du jànni du xotti saatir dalay yaatal ëffël la nga mel ni doomam du màtte du jëw du xool lu warul te siisul du rummi du mer du xul ci lu dul boromam du xaste du dóore ñàkkul bay fayantoo dog war maa bokkam ba boromam du reetaan nit du farfarloo du sot nit du yàqub der du tas nit ngir boromam ndaxam ji waay jikko yi yoneen la lamboo ma ne fu le lim ngëneelam yeeg boromam fu ne raaseeti waaju mel ni mii mbër woyof na ca kaw te diis na ca biir boromam fu ne raaseeti jant bu dem ba njaloor tey leeral yëpp gox di kenul boromam fu ne raaseeti waajoo xam ni buy wax ku nekk di lox di làq ku dul boromam fu ne raaseeti kof bu jagaat geesoo day romb dërëm ya jëm ci mbirum fu ne raaseeti waajoo xam ni buy way arafu mu def aras di ca bég boromam fu ne raaseeti kuy fab alxuraan ji di def ci taax di taalif ngir boroomam fu li raaseeti kuy gis ahlu badirin di ànd ak ñoom tey deyaaleeg boroomam fu li raaseeti waajoo xam ne fu mu teew ku wopp mu faj ku dee mu yëgal boroomam ku bañ di xutbu bay raasi moroomam du gis bu ni mel ci ji jamonoy boroomam di sey fu ko woon ca gaaya wéer ca baawoon taxarnu yi nuy jubit du ci ñëw moroomam ku weddi ba tax nga bëgg ni maay moroomam na def li mu def te wax li mu wax boroomam te dox li mu dox ci réewi Gabon wo Congo ah. ci ay noonam te fekk fi moroomam te sàkk ku mel ni seyxi ibra faati wa ahmadu ndumbe ak lamp boromam te sàkku ku mel ni seyxi abdourahman loo ku juddi ci mbake moo la xamal boromam te sakk ku làq jagleeg sayidil muxtaar ka dem ba siyaar yonen moo ki doomam te seexal kem li seyxi bamba seexal te selal seeni xol ba ñu xam boromam te sàkkal leen mbooloo faw yuy jëf te tàggat leen ba duñ mën a boromam takat na saxal liggéeyal ngeen ji yonen te bum tere muy taxaw faratay boromam to dootu nelaw ta day daw soxna yamwam di daw seytane tey wetak boromam te bu mu yokkat te bum jénnal la muy jëf te bum njëstal ci jëf na ragal boroomam te bum diingat sëriñ si te bum fayantoo te bum bég ngir ka koy gotil moroomam te bumu xas nit te bumu jëwit bum rambaajit te bum fen bum dokkung bokkung moroomam da xam xol di xam baati nëpp nit di saafaray ragg di xalam boroomam te bum digle ka aaya ci wàllu bakkan di woota ca kaw te biir ba gisul boroom boromam li nga lépp doy na yow Moussa taxawlul ba tey jotagoo lu mat asakay boromam ku dégg ñu jàng way wi nang ma ñaanal maam ngërëmam da sax fii ba xam borom ma wax mu saf ko te saf boromam ku bëgg di mber mele Bamba ngi seetaan ñu ba ñu dee rek ay ngeen ñu ba ñu dee rek bëggatuñu dara bëggatuñu dara wax dëgg yàlla ñu daal bëggatuñu dara daal waaw yàlla baax na <laughs> yàlla baax na euh, ñu ngi ñu ngi waaj a dugg nag ci beneen ponk muy sëriñ tubaa ak xasida yi radiyallahu xam naa laa ci bëri na diggante Cheikhul Khadim ak Cheikh Ibra diggante Cheikhul Khadim ak maam Thierno Birahim Mbacke ku ne ngi yónnee laaj xam naa ni bu ko jaroon sax buuba dina jël programme mu télé bi yëpp ñu tuddee faf tele bi sëriñ Bamba TV waaye comme jar na ko kay waaye waaye waaye bëggatuñu dara bëggatuñu dara fi mu ne nii mm-hmm. ñu jàll ci chapitre boobu Cheikhul Khadim ak ak xasida yi waaw macha allah waaw kumba waaw kumba suñ falu la ni woon sufku dumuuhi li xubbil qadimi hmm. fardan ara tuur ay rangoñ ndox cofel goo am si xaadimu rasul farata la ni <laughs> na am maamu sëñ galas kalsum génneel sa commentaire sama seriñ bi Assane. kese. kii sama waa ji. coupé leen ma micro Assane. <laughs> ñëpp xaj nañ si. te. yóbbaale ñu géew rek. te waa ji. mu moom kaamil gi da ko joxoon xaadim. Mhm. daa bind indil ko. lu tax loolu. jox ko addiya xam nga sëñ Fallu bindal na sëñ tubaay kaamil ba wax ne bind naa kaamil ba xuuge waaye daa am kaamil bu mu mës a indil sëriñ bi nag bu ñu ko indee sëriñ bi da koo wax nii Muhammadu Fadilu sa borom nee na daa bëgg kaamil bu mel ni bi nga ma jox sëñ Tuubaa xaw ma fu yàlla nekkoon ci moom waaye soriwu ko <laughs> waxuma nag ci agri ay ngaala bu ma bu ma leeralee rek di nga xam ni leer na. sa boroom nee na moo dul ay caaxaan. dëgg waaw baat bi sa boroom nee na. te dafa wax wax ba tey.